oh je suis fier de waay yàlla na leen yàlla may gudd fan ak wér maa bëgg ci am naa ndam waay barki alxuraan bu la ma jooloo waay guys bu la ma jooloo waay dama kontaan ci yéen kontaan ci yéen quoi barki alxuraan gaa yi def noonu quoi kontaan naa ci yéen daal aw ma seen fay yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla fay sama gaa yi kontaan naa ci seen taxawaay dama yàlla yàlla fay ñu président Diomaye ak Ousmane Sonko ñi ngi ci hôtel boobu projet sur projet ñi ngay bind ñi ngi jamono ji jiitu nañ ba big su guddi quatre heures du matin maa ngi foog ni dañuy nelaw ma fëgg fa fekk ña nga ña nga ña nga xoolee di wax Ousmane Sonko Diomaye Faye quatre heures du matin barke alxuraan dem woote naa fa dégg la nii wax nekk ci liggéey bi gaa yi ci liggéey bi de romb nañ sénégalais yi man bu ma toogee gis gaa yi liggéey bu ñu nekk niveau bu ñu ne ak sénégalais ci débat bu bu bas ba étage bu ñu nekk nii ay coup d'état ah, ah, ah. kuy coup d'état kan kuy coup d'état <laughs> kan kuy coup d'état kan boo yii de ku laal jomaay dañ lay lekk booy yii nii militaire yi ku laal sonko dañ lay lekk da ngeen xamul lu xew xamu leen lu xew moo tax ma dégg kan mooy coup d'état ma xamul lu xew noppi leen mënuñu wax lépp y a des secret défense des fois ngeen jël ay bugg a ngandal information di wax di n'importe quoi tegu leen ko fenn du ay jours yu ngeen yor du dara da ngeen di yow rek di di ratatati xaw ma je sais pas wala koor gi jàpp leen wala koor gi jàpp ku koor gi jàpp sax am na yoo xam ne mu loo toog wax quoi ban armée mooy mooy coup kan la ñuy coup yow ñu coup moo a yomb ñu ko armée bi formé bouclier humain taxaw bu Amadou Ba doon dof-doflu kenn kese la fi Macky Sall bëgg a sauver boo leen gisee lii mu def nii dama leen koy expliquer fa laay tëjee dem gendarmerie biir armée la musa ne gendarmerie ci loxo armée la ne police moom ministre de l'intérieur la affilié la police nationale gendarmerie ak armée mais dafa am ñett kan moo jiite police Bokar Yàgg kan moo jiite gendarmerie Moussa Fall kan moo jiite armée mbay Cissé Macky Sall pour protéger ki nga xam ne def na fi sale boulot bu garaaw muy Moussa Fall ci la ko dugal pour protéger ko mu dugal ko armée léegi mbay siise moo jiite Moussa Fall mais Mbaye Cissé jiitewuloon Moussa Fall ku nekk général nga dafa am général Mbaye Cissé bu gérer gen musa Moussa Fall gendarme bu nga xam moom moo gérer gendarmerie di général Macky Sall pour protéger Moussa Fall mu roof ko léegi mbay Cissé jiite Moussa Fall léegi Moussa Fall élément mbay Cissé la mais Moussa Fall général la woon comme mbay Cissé loolu la mais du ay da ko moo defar nii pour après ñu coup d'état ñu attentat Macky Sall moo ko bëgg a protéger léegi mu jël ko dugal ko ci biir Mbaye Cissé protéger ko mu mel ni élément wu mbay Cissé léegi Moussa Fall mbay Cissé mooy baayam da koy protéger loolu kese pour sauver balaa dem suba ki nga xam ne mooy Moussa Fall mais gendre gendarmerie daa Moussa nekk armée te chaque année ci décret dañ ko koy dañ koy da koy wane mooy décret bi ngeen gis noonu décret boo xam chaque année day génn buy wane ni ba léegi gendre gendarmerie mi ngi armée police moo nekk intérieur ko Yàgg la moo jiite police Moussa Fall la gendarmerie ti général mbay Cissé l'armée donc Macky deful dara lu bees lu dul jël Moussa Fall général jox Mbaye Cissé ne ko coifel ma ko nga def blocus protéger ma ko lii kese la coow li ngeen di dégg yëpp loolu kese la Moussa Fall il est désarmé bu amoon doole Macky Sall du ko jël di ko jox Mbaye Cissé Mbaye Cissé nekk gaañu Macky Sall depuis Sam Kaolack jaaroon Prytanée militaire yàggul bu papaam dee yaayam da doon dund mi ngi dund Saalum gii la dëkk ca Saam Mbaye Cissé général Mbaye Cissé màgg ndoog Macky Sall ca Saam kon dafa jël Macky Moussa Fall jox ko Mbaye Cissé ne ko protégel ma ko Macky Sall buy dem ñuy retraité ñoom ñëpp retraité nañ lii kese la kon wax ji ngeen di wax ni attention bàyyi leen di développé lu loolu leen tegul fenn ay attentat coup d'état ay xawma xamu leen bu xew armée bi dañoo pare pour rey ñëpp pour protéger Diomaye Ousmane Sonko élection yi armée bi dem nañ def vote Diomaye moo gagné le président Diomaye Diomaye Sonko ñoo gagné partout Diomaye Sonko moo gagné kon xawma yéen seen ñenn ñuy wax ay coup d'état ñan la ñuy wax kan mooy coup d'état kan mooy coup d'état kan muy coup d'état kan ah mais bàyyi leen caaxaan léegi nag li ngeen di laajte yëpp jomaay incha allah président dina ko régler and léegi milliards yi léegi moor yi léegi loolu nag dem leen laaj ko Sonko jomaay ñu ngi ci vous serez pas déçus c'est moi qui vous maa leen ko garantir waxuma Sonko waxuma ak président jomaay man moo laa maa leen garantir ne di ngeen di ngeen am gouvernement boole musul am di ngeen am développement bu musul am di ngeen gis lu ngeen musul gis man maa leen ko garantir je mets ma tête jël naa sama bopp def ko teg ko prix wallahi billahi boo leen taxawee protéger Ousmane Sonko Jomaay ci yàqkat yi dinañ leen jox ndam lu rëy boo leen leen seetaanee yàqkat yi dinañ yàq lu bari kon lu ma leen dénk mooy protéger leen Diomaye Ousmane Sonko maa ngi leen koy ñaan lillahi wa rasuli boo leen leen protéger ñu yóbbu leen foo leen musul yegg boole leen leen protéger di ngeen gis seen bopp ci Sénégal boole leen leen protéger di ngeen gis Sénégal boo leen musul teg bët ci avancement ci développement ci bépp secteur lenn rek laa leen dénk ngir yàlla lillahi wa suuli protéger leen ma Ousmane Sonko Diomaye fay maa ngi leen koy ñaan guys gars yi bu ngeen ndam protéger leen ma ñaari soldaar yi ma ñàkk sama nday di ngeen daw tubaab yi dinañ daw ñëw Sénégal di immigré si billahi boo ma protéger leen bu baax contre les fossoyeurs ko contre yàqkat yi di ngeen gis changement bu doy changement bu yéeme mais bu leen seetaan yàqkat yi di leen yàqal bu leen seetaan janaxu baje yi di ngeeñ lu ñuy liggéey wala lu ñu defar jana ko bajee jaar fa yàq ko il faut protéger ce duo là le le Sénégal a voté pour Sonko Diomaye le Sénégal n'a pas voté pour Diomaye ils ont voté pour Sonko jomay ils veulent voir partout Sonko Diomaye ils veulent voir partout et ça c'est le c'est une demande sociale c'est le peuple qui le réclame on aimerait voir partout Sonko et Diomaye dio président dio la ñor ñun ñoo ko ñun ñoo ko xam nañ ko ñun ñoo ko dem voté ji protéger leen ma ñaari soldats yi protéger leen ma ñaari soldats yi protéger leen ma ñaari soldats yi Sonko Jomaay yi ku leen protéger texe ku leen protéger baax ku leen protéger baax le ne leen ko jaral tay le leen seen bakkan yi jàmmaarloog yàqkat yi fenkat yi soskat yi manipulateurs yi bu laajee jël arme ñu jël arme jàmmaarloog ñoom pour ñu protéger Sonko Jomaay yi c'est le meilleur au monde ñaaw ñeew ma benn président ci kaw suuf bu Sonko taxawee ak Jomaay nalawtuñu nag lekkatuñu naanatuñu ñi ngi ci hôtel boobu nekk ci suba ngoon guddeeg bëccëg sonn nañ lool c'est le duo lii rek laa leen sant gis naa seen liggéey nag macha allah yéen a ngi ci cleaning day bi dëkk bi set na wecc yéenay jàmbaar dëkk bi day defaru de wane ngeen ko ñoom ñi ngi fee di bind di teg di waajal liggéey bi doy waar mais yéen i toog leen mbedd Dakar yëpp set nañ peel buret pikk yéen tame oh je suis fier de ay waay yàlla na leen yàlla may gudd fan ak wér maa bëgg ci yéen am naa ndam waay barki alxuraan bu la ma jooloo waay guys loolu mooy coono waaye dama kontaan ci yéen kontaan ci yéen quoi yi def noonu quoi kontaan naa ci yéen daal aw ma seen fay yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla fay sama gars yi kontaan naa ci yéen seen taxawaay dama yàlla na yàlla fay baal gudd fan ak wér li ngeen fekk lépp ci tey